Saint-Valentin nekk fête des amoureux mbëggeel saa su nekk rek dañ koy wane waaye rawatina le 14 février ba tax na Dakar Live TV ne day def spécial plateau Saint-Valentin jagleel ko ñi nga xam ne ñoo bëggante spécial mbëggeel lay doon fii ci Dakar Live TV ñu waxtaane li nga xam ne mooy mbëggeel bésu Saint-Valentin 14 février bi nga xam ne ñëpp a koy waajal rawatina couple yi ba tax na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci couple monsieur ak madame waaj leen populaire kese yemoo leen li nga xam ne moo nekk seen Saint-Valentin ñu def plateau spécial bu ne xam ne amul fenn loo xam ne mosul ko gis fii lay xewee ci Dakar Live TV ngir participer si yomb na da ngay def 78 679 49 78 679 49 envoyé leen foofu noonu seen vidéo ñu def ko nag li nga xam ne moo nekk spécial plateau fii ci Dakar Live Leral TV mbégeel la ñu wax Saint-Valentin fête des amoureux nee naa la rek fii rek la amul feneen cey Dakar Live TV ay bala 14 dana neex de ak ak ak ak ak waaye